salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii euh, comme euh, te dañuy am mbégte ak contentement di dalal Mame Makhtar Gueye Jamra dañ koy jox kàddu mu nuyoo après ñu ko moom di waxtaan euh, góor ñu leen di di la waa kay ñu ngi leen di fay nuyoo te di jiital ci nuyoo bi seen mboolem téléspectateur yu Dakarnet te di am yaakaar nii laaj tontu yi ñu fas yéene seq ñu mën ci jariñu ñun ñi ci plateau bi ak mboolem ñi ñuy déglu ak di ñu seetaan incha allah. Euh, kon ni ñu ko gisee noonu kooku moo nekkoon euh, imam maam Makhtar dañu duggee du du xuuf ci waxtaan bi euh, dañoo gisoon ngeen def médiation dem ci gis Ousmane Sonko mais bi ngeen demee ci ci maître El Hadj Diouf dafa bañ a doon gis clientam ñu ne doon laaj loolu ba xam mu ngeen cee def leeral. waaw xam nga aada la ci africain ci boppam particulièrement ci sénégalais. Mm-hmm. bu fanta siiroo amee ci penc mi réeroo am. Mm-hmm. li ñuy dem di wàññinte sutura. day am ñaare ay responsable religieux et coutumier mhm. ñu yëngatu ci wàllu diine wala ci wàllu caada euh, mhm. sol seen dàll dox ci tànku jàmm ci lañ def déclaration nag mhm. abbé Jacques Seck daal di ko présider réunion bi ñu daal di ne yëf yaa ngi bëgg ëpp loxo est-ce que ñi yëngatu ci wàllu diine wàllu caada am nañu droit bàyyi ba ñu ne yaa mordom ñu jóg di def loolu tubaab di wax le rôle hypocrite di médecin après la mort maanaam néeg ba jaan bi wàcc nga toppa ci watat bi di dóor ñu daal ne ah kon amuñ ci droit ñu ne kon nag nañu dem seeti ñi seq mbir mi mm-hmm. parce que bu réglé entre Sonko ak Adji Sarr rek mm-hmm. coow li jeex alors ñu daal dem na seeti Sonko mm-hmm. mu recevoir ñu le samedi set daanaka temps bu yaatu parce que 16 heures la ñu tëjoog moom ba 17 heures 30 une heure de temps et demi. Mhm. kon loolu firnde la bu wane ni. Mhm. la ñu doon wax ak moom. Mhm. Euh, itteel na ko. mais est-ce que mën nañoo xam ne bi nga demee lan ngeen wax ak Ousmane Sonko lan la. alors ba ñuy wax ak moom nag. loolu xale yi di wax naan amul nëbboo. moo amoon te tubaab di wax naan il y a pas eu de sujet tabou. lépp la ñuy waxtaanee. tous les aspects du dossier. alors waaye man personnellement dama insister. Euh, pour wax ko ne d'accord ma ci li mu wax ne du wuy ji. parce que bu fekkee ne le juge d'instruction woo ko. Mhm. moom itam mu jox ma ay raison li tax bëggul wuy ji. Mhm. parce que joxe na ay argument nee na requêtu juge d'instruction bi ba mu ñëwee assemblée. Mhm. waroo jógee à la la de président dem commission ad hoc ba ca plénière. jox na ma des arguments ne que la procédure a été viciée. ça n'a pas été euh, dans les normes. il a le droit parce que parlementaire la xam na règlement inter assemblée. waaye man dama ko ne. au-delà de de de de de tes de ton désaccord ci procédure bi mhm. dama bëgg nga bàyyi xel ni bu la juge d'instruction woowee mhm. nga lànk ne doo dem mhm. code pénal wala boog code de procédure pénal dafa am àtte bu mu ci joxe mais heureusement ci kuréelu imam yi àndoon ak ñoon am na ci kenn koo xam ne juriste la mu daal di génn l' article 186 ak 187 ne ko daal boo lànkee ne doo dem euh, juge d'instruction bi dafa lay jébbal lu ñuy wax mandat d'amener mm-hmm. mandat d'amener nag mooy daf koy jox takk yi nee leen dem leen ca moom mm-hmm. neex naqari indil leen ma ko fii ma ne ko nag ak sa euh, kii bi nga am statut leader de parti mm-hmm. parlementaire nekk troisième lors de la dernière présidentielle ma ne du rafet takk yi ñëw ak mandat d'amener dajji sa buntu kër fitnaal la yeew la wala ñu mënate la dugal la ci oto alors moo tax nag tubaab dafa ne il faut que nous apprenions à tirer des leçons de nos erreurs du passé ci laa ko jox exemple wu un refus de répondre à une convocation du juge d'instruction ba mandat dama ne toftal ci mu di kaaw yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Xaadim Bousso loolu fàtte xaju fi c'était en 2001. Mm-hmm. alors ma ne Ousmane Sonko kon nag bu ñu sañoon ñun nga dem wuy ji. Mm-hmm. alors mu daal di ñu wax ne waaw effectivement. Euh, euh, léegi ah, mu d'accord ci loolu quoi. mu daal di d'accord ci loolu. Mm-hmm. alors ma bëgg leeral ne nag téye bañ ko téye woon. ça n'a rien à ak le fait que mu jógoon ne dafay wuy ji c'est que ba muy dem dafa am itinéraire bu mu jël. yoonam bu mu jël fekk am na loo xam ne kenn sóoraale wu ko. Mhm. des centaines de ses partisans. Mhm. ñoo bàbbeeku def ful topp cortège mhm. alors mu dem nag ba bloqué au niveau de Mermoz circulation bi. takk der yi tamit ils devaient assurer leur rôle. pour que dem beeg dikk bi ba ñu am gàllankoor. parce que am na ñu war a liggéey ñi war a def seen commerce et cetera. gars yi interpellé Ousmane Sonko ne ko nag yoon bi nga jël nag. sa pose problème kon ñun bàyyil ñu proposer la itinéraire bale mujj ñu juboo Sonko nee na du fa du ko jël parce que corniche bi il paraît que y avait des nervis qui étaient armés nekk ci ay pick-up donc il a donné ses raisons ne du ma jël boobu itinéraire. mais tamit est-ce gis nañ ni comme ça tey bu la woowee nga war a pare pour dem du yoon léegi yow nga xool comme di nga wuyu ji rek nga xoolee yoon bu la neex nga yow nga jaar fa pour mën a yem. waaw xam nga juge d'instruction. Hmm. bu la soxlaa fi sañ-sañam yem. Hmm. mooy jébbal la convocation. convocation bi nag sa tur moo ciy ne sa sant fa nga dëkk mhm. bés bi mu la soxlaa ak waxtu wa mhm. waaye yoonam newul ci booy dem ndax dàll bu weex ngay sol wala bu xonq est-ce que mbaxane bu gudd wala bu gàtt mhm. ban couleur yére ngay sol ak boo génnee ndax da ngay jaar Sandaga ndax da ngay jaar gauche loolu yoon yoonam newu ci mais comme que jël na itinéraire boppam mu indi problème moo tax takk der yi ne ko pour mu changer moom tamit mu daal di leen wax Euh, euh, ay craintam mhm. donc juboo amul mhm. ñoom Me Bamba Cissé te maa ngi koy remercier pour sa diplomatie mhm. daal di ànd ak beneen avocat doon ñëw def médiation daal di ne takk der yi tey ngeen ñu bàyyeek moom ñu dugal ko suñu oto yóbbu ko ñun ca juge ba euh, kilifa takk yi ne no le infraction et déjà commis il faut ñu yóbbu ko à la section recherche bu Colobane ñu daal di yóbbu Ousmane Sonko section recherche la ñu doon ragal daal di am ñu daal di gàll ci loosam ñaari infraction yu bees mu di euh, trouble à l'ordre public mhm. ak tamit participation à une marche non autorisée mhm. alors bu ko defee mu nekk un dossier dans un dossier loolu taxoon ñu téye ko mhm. mais ce n'est pas parce que da doon wuy ji li tax ma wax loolu dafa am ñu naan yéen a ko sacrifié yéen ñi ko wax na wuy ji <laughs> wuy bi amul problème waaye ba muy dem jël itinéraire boo xam ne werante na ci ak police. jëlal bii mu ne maa bañ bii lay jël. looloo tax ñu téye ko mm-hmm. pour trouble à l'ordre public. Mm-hmm. ak tamit participation à une manifestation non autorisée. waaye toujours est-il mm-hmm. léegi suñu borom def na que cette étape là elle est dépassée. parce que génn na euh, génnam bi nag bu ma yaboo dafa bokk ci liy indi ngelaw dal ak jàmm ci réew mi. mais góor gi est-ce na ñoo nañoo xam ba léegi nii euh, euh, Maître El Hadji Diouf pourquoi nangu leen euh, ki wan kii di clientam aji saar waa xam nga. ba ñu fa jógee. on a fait une déclaration. Mm-hmm. mais pour mën a tëddee njaaxanaa itam. jaadu na aji saar comme que elle a aussi des droits. Mm-hmm. ak luñ ko mën mënti sikk. waaye def na plaintam mm-hmm. elle a le droit de nous moom aussi euh, version am ak naka la ko gisee. waaye nag. mu am lu ñu sóoraalewul woon. avocat yi particulièrement El Hadji Diouf jóg ne du ci dal. journal bi nekk lu tax mu ne ñooñu seen yoon new ci lii affaire justice la. moom loolu la yoon wax Maître El Hadji. ne ñu non jotuñu gis. Mhm. dafa daf koy yëg. dem ci presse bi daal di wax. Mhm. wax ak ñun. Mhm. Euh, de manière indirecte. mu ne ko waaw lu tax mu ne seen yoon new ci. nañu dellu ci seen i jàkk ak seen i jaamukaay yàlla. lii du affaire religieux affaire justice la. bu ñu leen bàyyee ñu di ci def médiation ba mu sedd ça va être un précédent dangereux wax a wax a wax daal. daal di ne daal il est pas d'accord et il va s'opposer ne duñ ko gis tey duñ ko gis suba duñ ko gis ginnaaw suba. mais li ñu ragaloon moo am. Uh-huh. mooy ñun li ñu ci jubluwoon. Uh-huh. et je le répète ici. Uh-huh. maître El ñun wujjewuñu ak yow. xëccoowuñu ak yow cër bi la yàlla jox mooy avocat nga. ñun nag duñu magistrat duñu juge duñu avocat. ay simple ndongol daara lañu. des euh, des citoyens de bonne volonté. Mhm. yu ne donte la justice a ngi def liggéeyam. Mhm. waaye bu doon mu ngi def liggéeyam coow amul ci dëkk bi kenn du wax. mais comme que dafa jur fitna. Mhm. xeex yaa ngi takkarnaase. te boobu ba kenn commencé na rot. ñu ngi woon ci trois mois je pense. am na ay këru jàmbur yu ñu doon taal. taal kër euh, Seydou Diouf le président de la commission des lois. Euh, euh, incendié Euh, une préfecture je pense je crois que c'est c'est à, c'est à euh, euh, le, le bureau du procureur de de de, de Ziguinchor et cetera te ay di nga xam fu mu commencé te kenn xamul fu mu yem ñu ne woo kon nag ñun wàll woowu la ñu féetewoo kon jéemuñu gàllankoor seen action en tant que membre de l'institution judiciaire alors dañu bëggoon ni Ousmane Sonko amee sañ-sañ wax ak ñun. aji saar ngeen nangu ne. Mhm. am na sañ-sañ wax ak ñun. lu tax ngeen du ñu ko nëbb te nëbb bi ñu koy nëbb. Mhm. dafa am ñaari conséquence benn bi. Mhm. ñu ngi violer son droit à la liberté d'expression. ñaareel ba euh, ñu ngi dëggal tuuma tuuma ak ñaaw njort bi amoon depuis le début du dossier comme quoi que c'est na Euh, conspiration politicienne. Mm-hmm. yéen a ngi dëggal loolu. alors ñu ne ko kon nag. Mm-hmm. troisièmement mm-hmm. ay di nga xam fu muy tàmbali. mais doo xam fu muy yem. waaye li ma li ñu ragaloon moo am ñaari nit di xeex ñëpp di àtte nga ne man du ma ñuy xeex di telli telli ba dal sa kaw dama sa tànk. looloo mu jam ci affaire bi. fitna ji dem na ba dal ci kawam. te ñu ngi koy masalu ndax dégg naa këram dañ ko saccagé xaw ma dañ ko taal. loolu lañ ci doon bañ. voilà fii aussi. ñun xëccëwu ñoog avocat wujjewu ñoog juge ñun duñu avocat duñu juge duñu magistrat ay ndongol daara la ñëw ñu ne comme que dossier bi ba muy évoluer ba léegi mu ngi am ay jeexital ci askan wi ba gis nga tey à la date de ce mercredi 9 wax nañu waxi 10 morts et sans compter des blessés yoo xam ne il seront handicapés à vie am nañu ñu amputé alors on pouvait ne pas en arriver là parce que bu ñu waxtaanoon ak aji Sarr comme ni ñu waxtaan ak Sonko ba ñu trouver benn solution ba ndaw si retirer plainte par exemple sans contrainte euh, kon yëf yi du egg si voilà kon nag euh, loolu moo doon suñu obstacle ba jotuñu gis Adji Sarr waaye terewul notre euh, activité de médiateur sociaux de médiateur religieux se poursuit ndax fitna ji jeexagul gis nga temps yi waxatuma la ay rey ak yooyu dañu dem di yàq mais mais mais tamit est-ce que yéen li ngeen bëggoon amoo kii euh, am ngeen ko ci affaire bi li ngeen bëggoon yéen mm. euh, seen médiation beeg xam nga yéen ñëpp ak nga mm. àndandoo avec Zack euh, Zack Seck est li ngeen bëggoon ci affaire bi am ngeen ko waa parce que xam nga ñun ba ñu jógee ba kenn jógagul mm-hmm. l'histoire nous doon raison mm-hmm. parce que ñun dañu bañoon def yëfu nafiq mm-hmm. nekk ba jaan bi romb ñu topp ci watat bi di doon waaye gis nañu ne quand l'histoire nous a donné raison. Mhm. kuréel bu nekk jóg na le communicateur traditionnels par-ci les émissaires des khalifes généraux ku ne jog nga di wax c'est bien. Mhm. Eh, tubaab nee na il vaut mieux tard que jamais. Mhm. Hmm. mais tamit est-ce que mënuñoo xam ne affaire aji Sarr Ousmane Sonko euh, nekku benn dualité entre euh, pouvoir bi ak tamit l'opposition yi. parce que ça on l'a toujours dit parce que dañu ne affaire Adji Sarr Sonko c'est affaire privée nañ ko bàyyi justice traité ko dans le cadre privé. Mmh. dimension bi mu am yëpp dara warula ko politiciens yi ñoo ci dugg te amuñu ci droit alors moo tax nag léegi c'est devenu mm-hmm. un problème d'État voilà entre un opposant pur et dur mm-hmm. et l'État et c'est et mm-hmm. parce que même les médias étrangers analyse boobu lañ ci def France 24 maa ngi ko déglu sànq rek nee nañ l'opposant radical Ousmane Sonko euh, <laughs> euh, a des problèmes avec l'État suite à des de des des accusations de présumé viol et cetera. Mhm. nga kon ñoom seen bopp. Mhm. bu ñuy traité information bi noonu lañ koy traité. Mhm. dañ koy traité jox ko une dimension état. suñu fat la waaye bu ñu bàyyi woon juge bi. dox ko. comme les centaines les milliers de cas de mœurs yi fi am. te yéen presse bi ngeen di ko traité de janvier à décembre te benn coow du ci am. bu ñu ko bàyyi woon ci niveau mu jeex. alors donc euh, terewul. comme ni ma la ko waxee rek suñu liggéey ñu ngi koy continuer boo gisee bi ma la jëkkee jox rendez-vous mm-hmm. ñu décaler heure bi euh, ma ne la au lieu de 17 heures ñëwal 18 heures mm-hmm. euh, parce que dañu am réunion mm-hmm. pour euh, fay takk-takk les poches de résistance parce que dafa am des autorités étatiques yoo xam ne ci seen maladresse ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu